na benn benn benn waay mm, amoon na mos na am doom bu góor mu jël doom ji yóbbu ko ci sëriñu daara bi sëriñu daara bi jàngal xale bi bindal ko baa siin mi marak alif laam laam xaasaqeer xale bi ñibbisi ci kër gi indi àlluwa bi baay ji xool àlluwa bi ne ko lii lan la mu ne ko sëriñ bi lii la ñu jàngal tey mu ne ko mën nga koo wax mu ne ko waaw mu ne ko waxal mu ne ko baa siin mimarak alif laam-laam xaa saqeer ji kontaan ne day feetal sëriñ bi da koy feetal feet bu mag baay ji annoncé yónnee ci dëkk yi nga xam ne ñoo leen wër yépp ne leen bés sàngam sëriñ diw dama koy feetal ñu wër ay gëléem wut ay nag ay xar ak i bëy ak i ginaar lépp tëral rendi def benn pojam bu mag pour teg fa sëriñ bi ngir li mu jàngal xale bi bi ñu indee sëriñ bi feet bi ñëw ñépp daje ñu yëkkati sëriñ bi teg ko ca kaw mu toog ngir teral ko façon tissu bu cher bu ne bàyyi ja xotti ca indi ñëw sëriñ bi ne ko dama lay teral sëriñ bi ne ko waa yow yow nga ji rëy na yow man tàmbaleegu ma sax def ci xale bi dara baa si nimarak rek alif laam laam xaa saqir laa defagum ci moom nga teral ma lii lépp sëriñ bi ne ko yow da fekk ni yow danga xamul luy baa si nimarak alif laam laam xaa boo xamoon dayo bi xam solo si mu am xam li mu wundu xam li yàlla dëxëñ ci moom ak li muy tekki kon danga xam ni teraanga ji yelloo nga ko waaye malheureusement yelloowuloo teraanga ji parce que xamuloo valeur basse yin mimar ak alif lam lam xaasaqir moo tax loolu li nga ciy déggee mooy ki xam basse yin ki jàng basse yin mimar ak xam ko mu nekk ci moom mu nekk jikko ci moom mu koy doxe di ko waxe jikkowoo ko kooka amul ku ko gën ci kaw suuf waaw amul ku ko gën ci kaw suuf waaye nag bu fekkente ni dangaa jàng mbir te xamuloo ko munoo xam solo sa munoo xam dayo ba munoo xam gëdd ga bari na ci nit bu ñuy booy gis ñu koy xormaal di ko teral du li mu nekk du li mu nekk jëmmam du li mu nekk doomu aadama du li mu nekk jullit xamul tax ñu koy xormaal li yàlla def ci moom alquran bi nekk ci moom moo tax léeg nga gis ñu ne diw alquran buy dox la wala kaamilu alquran buy dox la parce que dafa jàng alquran wattu alquran bi yemul ca wattu ko waaye mu koy doxee di ko jëfe cëram yëpp ba cër yëpp nekk cëru alquran kon loolu la nga ciy déggee mooy euh, daara li muy def ci nit amul benn benn lu ko mën a def ci nit lu dul lu dul daara lu dul